ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën a jot mboolem vidéo boo xam nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew ci à l'établissement Mbaye Frères votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité à cet effet nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique plus de nuisances sonores plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 864 75 15. salaamaaleykum wa ñoo ngi fii ci euh, exposition bu tubaa ca kanam jàkkaarloog euh, sëñ Alpha euh, Thiam sëñ Alpha Omar Thiam di secretaire général bu Touba ca kanam. yaakaar naa secrétaire général adjoint bu tubaa ca kanam yaakaar naa wàllu secrétariat liggéey bu ama am solo la ci bépp organisation boo xam ne dañ koy organisé ci àdduna bi. Euh, Touba ca kanam ana ci yan taxawaay ngeen nekk ak ci euh, yan projet ngeen am yoo xam ne macha allah ndax yéen koy wax ak yéen nag Euh, bokkoo leen masalan ku jàkkaarloo politiciens yi da leen laaj loo leen nar waaye yéen da ngeen di ay sottalkat masàllaa tabarkallaaw yéen a ngi def seen jéego moo tax ku leen di laaj da leen laaj loo leen bëggate rek tey woo murti sëñ Tuubaa ñu fekk si leen ci akasa euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen ziar bu baax a baax di leen jaajëfal ci vraiment exposition bi pour nga xam ne dañ ko ñëw tey def ko balaa màggal bi pour fexe nit ñi xam lan mooy Tuubaa ci kanam association bi nag comme nu ngeen xamee man maay secrétaire général adjoint bu Touba ci kanam ndax association ku wax rek di wax mbiru administration mbiru kayit yeeg yooyu yëpp léegi ci loolu nag moo waral nag tey ñu ñëw fii nii pour def benn exposition boo xam ne ginnaaw bu ñu ko defee dakaar ba noppi ñu ñëw tey fii nag ba gën ko yaatal pour def ko fii ndax defoon nañ ko Dakar ci ubbeetugu Masalik naan bi ñu ñëwaat tey war ko def fii nii objectif bi lan pour wone réalisation Touba ci kanam ndax dañu am benn slogan maanaam benn bàkk bu ñuy wax laaj nit ñi lu ñu mën di ko def fu ñu xam donc mënoo laaj nit ñi ba pare te doo ñëw nga ne leen léegi lii nag day tax lii nii ñu ne la jaxaraan maanaam jaxaraan teg bët. ci wàllu saytu xaalis ak euh, administration financière amu leen ci benn. non amuñ ci benn problème nañ leen tey nañ leen wax ne Touba ci kanam xaalisam mooy tey euh, mooy structure yu gën a transparente tey presque si seen bu doonu lu gën a transparente fait partie yu gën a transparente ndax koo xam ne chaque mois mu publier euh, ay compte mu publier comptam yeeg les entrées et les sorties dans le web nga xam ne kon transparence am na ci parce que loolu yëpp lu ko waral mooy nit ñi 1000 francs ndaw na waaye na war nañ xam fan lay dem loolu moo waral exposition yii nii buñ ko defee nit ki dina mën a ñëw na ah 1000 francs kat joxe naa ko jënd nañ ci camion 1000 francs joxe naa ko jënd nañ ci oto mbalit 1000 francs joxe naa ci ngacc nañ ci ndox donc loolu mooy transparence macha allah tabarkalla oh, transparence ci Touba ca kanam moom damay laaj rek pour nit ñi seetaan ñoo tax di wax mais ku xam Touba ci kanam xam ne waa dama naan Dies 144 Dies 621 Dies loolu plateforme la boo xam ne dafa nekk ci internet bi ñi ne yor seen i 1000 francs yor seen i bu ñëw tàyyeel yenn saa yi nga may nit crédit bi 1000 yoo xam ne xëñ na baax na lool waaye nag jox ko sëñ Tuubaa moo ëpp solo barke Xaadimal Mustafaa mislas miha ji sëñ Tuubaa tudd képp koo xam ne danga nga cee wuy si ci àdduna ëllëg ci la la sëñ Tuubaa di fàggulee kërug ci kanam ndimbal la ci jàppandal addi murid ak fu mën a def waaw da koy gën a dëggal ndax euh, dafa ñëw ci moment boo xam ne Touba ci kanam dafa ñëw ci moment boo xam ne ñëw na fa Euh, ndax gis nañ Touba nu mel gis ngeen nu mbedd yi mel ci ndox yi lépp nu mel loolu moo tax ñu teg ay ay procédures yoo xam ne tamit pour nit ki participer ci toobaa ci kanam day yomb ci moom ndax plateforme yëpp am nañ ko soo neexee mën nga jëndee reçu bu la neexee mën nga def Orange Money bu la neexee compte bancaire bu la neex nga dem nga verser fa. am na loo xam ne nag euh, laaj la bu ñu nit ñi di laaj lu bari wàllu tali. tali ku ne xam ne ne loolu état moo koy def yéen it seen i programme en tant que secrétaire général adjoint est am ngeen ci euh, programme. waaw xam nga xam nga ñun dañoo am lu ñuy wax ay sept domaines prioritaires sept domaines prioritaires yooyu. ci biir cette même année aussi dañoo am lu ñuy wax les projets à court terme les projets à moyen terme et les projets à long terme court terme ci lii lañ nekk moyen terme ñu ngi war a def benn centre de dialyse boo xam ne c'est multifonctionnel parce que gis nañ ne feebar boobu mu ngi sonal nit ñi xam nga li ma la at côté at côté cancer aussi bëgg nañ ci def benn centre boo xam ne loolu mooy loo xam ne c'est à moyen terme court terme moom gis nañ lu ñuy def donc nag à long terme lu mel ne tëli yi at pavé fépp Touba nga xam ne doo ci gis fenn suuf at canalisation loolu mooy à lon terme mais long terme Touba ca kanam du lu yàgg